bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa tey mooy guddig ñeenteel gi ci weeru koor wi naafila tey gi ñeent rakkaa lay doon bu ci ne faatiha benn yoon kaafiruuna ñetti yoon ñeenti rakkaa bu ci ne faatiha benn yoon qul yaa ayyuhal kaafiruuna ñetti yoon asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa مكرما بقرى الطاعات والسدد